Euh, su loolu weesoo yaa ngi doon wax ne nga ne euh, waa ji de wax ne waajuru yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ngi ci safara man de wax dëgg yàlla euh, li ma gis ci ahadis yi te ahadis yi ñee indi ko bu ñu nekk hadis bu wér mooy papam la ñu wax man gisuma benn hadis bu wér boo xam ne Eh, dañuy wax ne yaayu yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi ci safara loolu eh, gisuma ko comme gisuma ko nag moo tax ne loolu bokkul ci samay pas-pas donc pour l'instant bu may wax ni géew ma ne di eh, waaye juru yonent bi alayhi salaam bu jigéen dafay nekk safara parce gisuma ci dalil gisuma ci dalil du ma wax tamit day dem aljana parce que gisuma ci dalil parce que ñun suñu pas-pas mooy lan du ñu seedeel kenn safara walla aljana du dul dalil dalil su ñëwee ñu ne waaw diw mu ngi aljana dalil su ñëwee ñu ne waaw diw mu ngi safara parce que dalil la ñu gis mais comme gisuñu dalil wax jooju duñ ko wax su fekkee ne waajur bu góor la xadis la boo xam ne gis nañu ko yeneen ci bi wa salaam muy wax ci xadis ci sahih muslim abu dawuda tamit indi na ko te imam ahmad tamit indi na ko am na benn waaju bu ñëw si yonent bi alayhi salaatu salaam mu daal di ko ne sama papa fu mu nekk mu ne ko sa papa mu ngi si safara waa ji daal di walbati ko di dem eh, après yonent woo mu daal di woo ko wax ne inna abi wa abaka fi sama papa ak sa papa ñu ngi si safara lii mooy dalil bi nga xam ne ahlu sunna wal jamaa di koy daliloo pas comme ñoom ñooy génne hadis yi seen bopp wala ñoom ñooy saag te tamit eh, bu leen topp eh, fenkat yi parce que safa suñu déggee ni ñu ne ñu ngi saag waajur yonent kan mooy saag waajur yonent hadis bi moo ñëw te ñun hadis lañuy ñuy gëm hadis bi moo wax loolu gisuma kenn ci ahlu sunna wal gën génnaw hadis bi ñu passé ko wax ko leneen loo xam ne jaaduwul kon loolu ak sos la boo xam ne ñu ngi sosal ahlu sunna te deuxièmement yaakaar naa ne muslim sahih muslim waxoon naa ko sama sama benn nawjo sahih muslim ki ko bind troisième siècle la génn àdduna ñi leen gën a metti tey si wahaab yi ñi nga xam ne dañ leen waa wahaab yi wala salafis ibn taymiya la diggante ibn taymiya ak muslim dafa sore kon amul benn hadis la ahlu sunna di créer wala ñi nga xam ne ñoom ñuy wax ne wahabi wala salafi boo xam ne dafa créer benn xadis buy wax ne waaye jur yonent bi fii ak la nekk wala du fii kon loolu mooy suñu pas-pas suñu pas-pas dalil moo koy jiitu du raay kon lii lañu gis moom lañu gëm bëggoo ñu gis loo xam ne dafay safaano ak moom faalewuñu ki nga xam ne moom moo ñu wuute moom moo wuute ak ñun wala leneen lañu kii ni ñun yonent lañu gëm te waxu yonent lañu jiitale ku nekk yonent ci alayhi salaatu moo ñu gënal kenn ku nekk yàlla subhanahu moom la ñuy won moom la tànn moom la yónnee si ñun kon loolu mooy suñu pas-pas dalil moo koy jiitu du ñu pas benn pas-pas boo xam ne ci suñu dalil am rek wallahu almustaan eh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki ahlul xadis maa ngi leen di ziyaara bu baax sëñ Mbaye Wade ñu ngi lay nuyu <clears throat> nuyu ñu fekk ci bunt bi yëpp waaw xam naa comme ni ko Thiam Teranga waxee rek ni ma koy waxee toujours am na ay audio yoo xamante ne léeg-léeg bu la yàlla eh, xawee dimbalewut tuuti ba nga ñàkk chance ba déglu ko ci suba teel wala ci guddi boo ko dégloo ci subateel moom sa journée boobu c'est c'est foutu boo ko dégloo guddi euh, sa mm-hmm. sa guddi googu itam boo moytuwul doo mën a nelaw euh, ala kulli xaal <coughs> audio trois minutes cinquante deux secondes yi jaabaral di wax Thiam Teranga yaakaar naa junj na ko que ne euh, xeewuñu waaye waaye du wut xeewu de xam nga ku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne sufahaul ahlam asnaan ku yonent bi tamponeel tamponé yow mbooloo mi ngay bokk képp ku ci bokk rek dof lay doon kooku même boo xeewu woon boo duggee ci mbooloo moom sa xel mi nax moom kay pour mucc li ñuy ñaan yàlla mooy yàlla buñ ci bokk yàlla buñ am doom bu ci bokk yàlla buñ am sët yu ci bokk yàlla buñ am kenn ci suñu famille ku ci bokk loolu rek la waaye lu nit xeewu xew bu xew woon ba gën a xew en Einstein wala mu gën a xeewu jeunes yi gën a xew ci àdduna bi booy dugg ci Ibadou Rahman dof d'ailleurs it mbooloo ibaadu doo ci mën a dugg sax te nekkoon dof ku dof rek moo ci dugg waaye ku am xel dëgg-dëgg c'est lépp di marché normalement moment bi ngay dugg ci ibaadu da ngaa tàqaliku sa soba moo tax comme li yonent bi wax kuy naan sàngara du naan sàngara jamono ba muy naan te fekk mu ngi gëm yàlla kuy jaaloo du jaaloo jamono ba muy njaaloo te fekk mu ngi ànd ak gëm yàlla kon ibaadu doo ci dugg te fekk yaa ngi ànd ak sa xel moom sa sens yëpp ndax yonent bi moo ne ay dof lañuy doon ay ñu dofee xalaat lañuy ñuy doon yal na ñu yàlla musal euh, ci gàngoor gu mel noonu euh, bi ci topp mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, damaa xamul lan lañ lan la leen def ñoom lan la leen def di léegi man am na lu ma ci comprendre nag xam naa xam naa problème bi fan la mais léeg-léeg da ngay questionner sa boppa ne est lii sax jaroon na ko ndax yow koo xamante ne moom moo la indil diine ji koo xamante ne moo la jàngal mbaax koo xamante ne moo la jàngal teggin koo xamante ne moo la jàngal mbañu buus koo xamante ne moo la indil ay axlaaq bu'istu li utammima makarim al axlaaq yow kooku chaque jour li ngay jàngale ci moom ak image bi ngay wane ci moom buñ ko toppee da gis ne image yu nit ko suufee la image yu nit ko doyee di la mës naa kaa wax yaakaar naa 2015 la woon xaw ma 2016 ca majalisul ilmi ma ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi lay alxuraan di présenté personnage yu yonent bi lay alxuraan di présenté boo ko jàngee ak personnage yu yonent bi lay yenn xadis yi di présenté c'est diamétralement opposé ñaari nit lañu bokkul boo jàngee yonent bi ci alxuraan da koy màggal boo jàngee yonent bi ci alxuraan da nga koy wekk boo jàngee yonent bi ci alxuraan da nga koy sopp boo jàngee yonent bi ci alxuraan da ngay bëgg a mel ni moom waaye boo jàngee yonent bi ci yenn xadiisu banu umayya yi na ma yàlla baal wal iyaazu billah da ngay xeet personnage boobu ñu lay présenté ndax lépp lu doomi aadama bu baax di bañ a def rek dañ naan la moom def na ko lépp lu doomi aadama bu baax di jomba def dañ naan la moom def na ko lépp lu xel mu rafet di jomba def dañ naan la moom def na ko wal iyaazu billahi taala loolu moo ñuy gën a firndeel xadiis yi ay loxo dugg na ci te ay loxo yi ci dugg loxoy noonu yonent bi lañ sallallahu alayhi wa sallam ki nga xamante ne yàlla daf koo màggal ba du ba du turam bàyyi ñëw radiyallahu anhu mu ne di nga dégg yaa Muusa yaa Nuuxu yaa Ibrahim yaa Adamu yaa Daawud lépp di ko dégg ci alxuraan waaye doo dégg mukk yaa Muhammadu ndax lan ni ko màggale yaa ayyuha rasulu ngay dégg yaa ayyuha nabiyu yaa ayyuhal muzammilu yaa ayyuhal muddassiru yaasiin taaha bu demee bay jàpp turam di ñu ko di ñu ko xamal sax c'est pour ñu xam tur bi la wa ma muhammadun illa rasulun xad xalat ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah muhammadun rasulullah walladina amanu wa aminu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alxaq pour ñu xam tur bi la ak tamit mbóot ma ca nekk parce que ñeenti yoon la te turam ñeenti xaraf la

وتعذروه وتوخذ وتعذروهما وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة yonent boobu noonu boo ko jàngee ci hadith yi ak image bi ñu la koy présenté da nga naan benn paala bu dëkk seen koñ rek yow moom yéen a yem lépp loo lépp looy jomba def sax moom mën na koo def bu dee da ngay jomba tuur ndox ci mbedd mi sax moom mën na koo def wal iyaazu billahi taala léeg-léeg xol day métti lool doo xam. Euh, doo xam léeg-léeg jullit ñii lan moo dal lan moo ñu dal sa xol dafay metti waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ci alxuraan ne bokk na ci shakwa yi muy def wa qaala rasulu ya rabbi inna qawmi ittaxazu hada alqurana mahjura wa qaala rasulu ya rabbi inna qawmi ittaxazu hada alqurana mahjura jël alxuraan sànni ko min waraay zuhurina loo wax ñu ne la xadis xadis xadis xadis xadis ba nga xamante ne tey jii image yu yonent bi siira wu yonent bi jàngale wu yonent bi ci ay xadis lañ koy jëlee waaye duñ ko jëlee ci alxuraan te alxuraan moo nekk priorité bi waxuma ne buñ ko jëlee ci xadis mais alxuraan moo waroon nekk priorité bi yonent bi ngay jàng ci alxuraan yonent bi ngay jàng ci téere xadis yi dafa mel ni yàlla ak yàlla maa ngi dégg benn mal'un laanatullahi alayhi al akhrashid benn jour bi muy comparé yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yonentu yàlla isa alayhi salaam lim njëkk wax mooy yéen julit ñi ci seen téere bi suñu yonentu bii di almasih yonentu yàlla isa tagg ngeen ko tagg ngeen ay way waajuram ndax wax ngeen ne sax wa ummuhu siddiqatun kaana yakulaani taam yaayam sax yee la siddiqa la tagg ngeen ko wax ngeen ne yaayam du euh, ku baax la duul woon ku bon duul woon nangam duul woon nangam wax ngeen ay jikko yu rafet ci moom wax ngeen ay jikko yu rafet ci suñu yonent bi kon suñu yonent bi yéen seede ngeen ne juddu bu rafet la am waaye yéen jullit ñi seen yonent bi ci seen téere xadis wax ngeen ne ay waajuram ñi ngi safara wal dama ko dégg sama ronqañ yi di tuur waaye ba ma ba ma paree li ma njëkk xalaat mooy dama ne alhamdulillah parce wax ju bon jooju mënu koo génnee ci alxuraan ci ay hadis dem léegi loolu lu muy firndeel ba mu ci paree taaliq bi mu ci teg mooy kon ñun suñu yonent bi am na juddu bu baax te seen yéen seen yonent bi wal iyaazu billah amul juddu bu baax te nit ku nekk ci juddam la ñuy xool balaa ñuy xool lam indi après ndax al irqu dassaas lii la wax billahi wallahi tallahi lii la wax dem leen ngeen déglu ko vidéo baa ngi ci YouTube léegi même même bu fekkee ne yow say waajur doon ñu baax lan ngay demee ci adduna bi taxaw ci digg mbedd mi di di jébaane naan say waajur doon ñu baax say waajur doon ñu baax loolu nga xam ne man ak yow rus nañ koo def ñu naan ñun wal iyaazu billahi yonent bi def na ko même bu fekkee say wayjur dañoo génn àdduna nga gént yàlla dugal leen feneen fudul aljanna wal iyaazu billah lan ngay demee ci buntu jàkka ja wala ci penc ma taxaw naan da génn gént sa wayjur nekk safara léegi loo xamante ne yow yow mu am common sense bi rus nga koo def nga ne yonent bi def na ko wal iyaazu billah taxaw naan inna abi wa abaka fi naar doo sax rus même bu fekkoon ne am na wa xaashahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla dañu dima tànnal ay ndey ak ay baay dañu dima tànnal ay ndey ak ay bi may juddu ci samay ñaari waajur léegi bu fekkee ñun nangu nañ ne yàlla dafa tànn yonentu yàlla aadama ngir yonent bi tànn yonentu yàlla siisa ngir yonent bi tànn yonentu yàlla noofa ngir yonent bi tànn tànn tànn tànn di tànn ñu baax di tànn ñu baax di tànn ñu baax ba nga xamante ne ñaari nit sax buñ juddoo nekk ay ki ci gën a baax la yàlla di def leeru yonent bi ci moom waaye ñu ñëw ba ci ñi ko war a sukk jur ñi daal di tànn ay bokkaalekatu yàlla te yàlla ne bokkaale moom mooy lim gën a bañ ci kaw suuf bokkaale kat moom la yàlla gën a bañ ka njaalookat moom la yàlla gën a bañ ka naankati sàngara moom la yàlla gën a bañ ka sàcc moom la yàlla gën a bañ ka fenkat moom la yàlla gën a bañ ka mboolem jikko yu ñaaw yi ñu ne nag ñaar ñooñu lañ tànn ñoom ñoo ko jur ana sa xel ana sa common kon tànn bële ñu doon def di di tame di lay di lay di tame di tame di lay ban lan mooy njëriñ li bu dee tànn nañ ci Ibrahim tànn nañ ci Ismaayil tànn nañ ci Adnan tànn nañ ci Mudar tànn nañ ci diw tànn nañ ci diw tànn ci diw ba tànn ci Hachim tànn ci diw léegi ñëw ba ci ñaar ñu ko war a sukk jur daal di tànn ñu gën a yées. mu ngi mel ni mu ngi mel ni nga dem ci benn dëkk tali dëkk bi ba mu rafet tali boo xamante ne goudron bu tàllalu def ko autoroute tabax benn palais bu ngand ngand. sa palais bi nga def ci ay marbre def ci lu nekk tabax sa appartement appartement bi nga tabaxee ko ay or def ci ay marbre wis ci ay diamant tabax sa néeg sa néeg bi nga def ko ay loo xalaat ci lu rafet ci àdduna bi nga def ko fa ay lu lu marjaan lépp nga def fa waaye nga ñëw ba ci lal bi nga war a tëdd rek nga daal di dem jëli benn benn eh, nuñ koy waxatee benn kubéeru kaawo kaawo douche yi benn kubéeru foos nga teg ko fa daal di dem jëlee ay ginnaaw kër tasaare ko ci daal bi ñëw di ci tëdd léegi kon ana njëriñu tabax yee nga doon def ak or yële nga doon tabax ak marjaan yee nga doon def ak lu'lu yeeg jamaa yee nga doon wis fële bu dee lal bi ngay tëdd moom ay ginnaaw kër nga ci wis foofu ca ca ngay fanaan léegi kon or bi nga doon wis ci buntu kër ga ak tali ba nga defoon lan mooy njëriñ li dañ naan la yow léegi bu fekkee yàlla tànn tànn tànn tànn tànn tànn lépp ngir yonent bi di tànn di tànn di simplifier di simplifier ñëw ba ci ñu ko war a jur mu tànn ñu gën yées mu ngi mel ni ngay def examen wala ngeen di def concours ñu ne dañuy tànn ñi gën a intelligent di tànn di tànn di tànn di tànn ba ñëwee ba ci final bi kañ jox coupe bi moom mënta résoudre cinq plus quatre xamul xamul résultat bi kooku te ñu ne ñañ génnee ñëpp ñoom ñoo gën a nul moom moo ci gën a intelligent ana intelligence cinq plus quatre mënoo kaa résoudre te fee génne nañ ay ñu am ñu am master ñu am maîtrise ci ci mathématique sànni nañ leen parce que ki qualifié wu ñu ñëw ba ci ki war a jël final bi ñu nekk moom mënta résoudre cinq plus quatre kooku la ñuy jox final bi ana xelu jury bi lañuy wax léegi yàlla nag moom ngeen taxaw naan ibna abi wa abaka fi naa billaay damay koy déglu hadis boobu saa yu ma ko rombee sama sama sama sama karaw boobu taxaw xaw ma naka la ko ab jullit mën a waxee euh, alors <laughs> nee na nee na ñoom gisuñu lépp lu ñuy def dalil moom moo ci jiitu maanaam dañuy am dalil ba pare doog a pas li ñuy pas léegi nee na ñoom gisuñu fu yàlla waxee ne wala fu yonentu waxee ne yaayam wala way juru yonentu alayhi salaatu wasalaam sayyidatuna amina mu ngi aljanna loolu moo tax ñoom duñ mën a pas ne Sayyidatuna Amina mu ngi aljanna xaw ma ndax balaa ñuy wax dañuy am lu ñuy tux wala dafa am lu ñuy naan lu bon balaa balaa ñuy ñëw di wax donc parce que yenn wax yi ku ànd ak ku ànd ak sansam du du ko wax lii waxu nit ku katakay la du waxu nit ku sensible di fonctionner maanaam da xaar ba yonent bi ne eh, adduna bi. sama yaay aminatu mu ngi aljanna ngeen doog a pas ne yaayam mu ngi aljanna <coughs> waa léegi li ma lay laaj mooy indil ma fenn fenn fu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ne Muawiya ma fenn fu yonent waxee ne mu ngi aljanna lu tax nga pas ne mu ngi aljanna indil ma ko indil ma fenn indil ma fenn fenn fu ko yonent waxee waxuma la ay taawil nag fenn fu yonent waxee ne Muawiya mu ngi aljanna bi nas ba nga pas ne mu ngi aljanna pour xamal la ne ñii li ñuy def nii ay politique la ak bañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam léegi nee na xadis bi xadisu inna abi wa abaka fi sama baay ak sa baay wal iyaazu billah ñu ngi safara nee na muslim moo ko riwaaya abu daawuda génnee na ko imaam ahmad génnee na ko waa mais xadis bu muslim génnee moom kenn xam nga yemut ci daraja xadis bu buxaari ak muslim bokk génnee boroom xam-xam yi dañoo wax ne xadis bi ëpp doole ci xadis yi mooy xadis bu Buxaari ak Muslim boo ko génnee muttafaqun alayhi léegi muttafaqun alayhi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne Ammar ibnu Yaasir fi atul baaxiyee ñoo koy rey moom mu ngi leen di woo jëmee leen aljana ñoom ñi ngi koy woo jëmee ko safara te fi atul baaxiyee boobu noonu bañ reyee Ammar ñu xool gis ne Muawiya moo nekkoon njiit li léegi wax leen ba xam gëm nañ ne Muawiya ak mbooloom safara la ñuy woote jëm ndax gëm nañ loolu léegi tey mu taawil ko daf naa la déedéet boroom xam-xam yi firee wuñ ko noonu nee nañ nangam nee nañ nangam nee nañ nangam waaye du ko wax bi xarf comme ni mu waxee inna abi wa abaka fi naar ne papa yonent bi moo nekk sawar wal iyaazu billahi taala du ko wax de jamais mais fii boo ko ne fi atul baaxiya muawiya ak jab ak ak mbooloom léegi mu taawil léegi xadis bu buxaari ak muslim bokk dëpp génnee buxaari ak muslim génnee nañ que ne dina am ay saxaaba yu ñuy indi yurfa la yurfaanna ilayya naasun min ashaabi min ashaabi ci samay saxaaba hatta ida araftuhum wa arafuni ixtulujiduuni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bis penc dana am ñu ma indil samay saxaaba ba ma xàmmee leen ñi daal di leen dëpp jëmee leen safara léegi wax ko ne ko ndax gëm na loolu léegi mu tawil ko billahi dañ koy tawil duñ wax mukk ne ñenn ci saxaaba yi la ñuy yóbbu safara dañ naan la saxaaba saxaaba ak safara xaasha lillah léegi waaye juuru yonent ak safara waaye juru yonent ku yàlla xool ne moom mérité na juru yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngeen ne ma ngi safara waaye xaritu yonent moom mënta dem safara mais ki ko jur moom mën na dem safara bi ci topp comme saxiixu muslim la wax ci biir saxiixu muslim boobu ci biir saxiixu muslim bi inna abi wa abaka fi naar bi nekk xadis ñëw na foofu ne abu sufyaan papaay muawiya aduwullahi la noonu yàlla la te loolu du ne yonentu kese moo ko wax sax waaye ay saxaaba ñoo ko njëkk a wax yonentu taqileer leen ci léegi laaj ko ba xam gëm na ne Abu Sufyaan aduwullahi la lu tax muy taraddi ci moom ku ay saxaaba wax ne huwa aduwullahi yonentu bi taqileer leen ci te ci biir saxihu muslim bi inna abi wa abaka fi naar bi nekk ci la xadis boobu nekk jëfee bien les choses loolu la français di wax yàlla yàlla moom dafa xam lu muy def bu baax a baax ci biir saxiixu muslim bi inna abi wa abaka fi naar bi nekk foofu la ne foofu la ñëw ne abu sufiyaana aduwullahi la noonu yàlla la te xadis bi xadis bu wér la ci biir saxiixu muslim bu dee gëm nga bee gëmal bi waaye billahi boo ko waxee mu taawil ko naa la doye deet borom xam yi di réew léegi dafa gën papa yonent bi ci yéen bu dee pour yéen abu sufiyaan moo gën papa yonent bi ñun pour ñun waxuma la dàll pàppaay yonentu waaye suuf su dàll pàppaay yonentu mës a dëgg moo ñu gënal téeméeri milliards abu sufiyaana billahi alladi la ilaha illa huwa ñun foofu la yonentu toll ci ñun suuf su dàll way juróom mës dëgg moo ñu gënal àdduna ba mu fees ak abu sufiyaan te pourtant imam muslim riwaaye na ne abu sufiyaan aduwullahi la waaye du ko wax jamais imaam Ahmad bi muy wax imaam Ahmad ak Tabaraani ak euh, Bazzar riwaaye nañ jëlee ci Seydina Abdullah Ibn Abbas mu ne yaqulu ahaduhum abi saxiba rasulallahi wala na naalun xayru min abihi di nga dégg ay nit ñuy wax naan sama papa mës na ànd ak yonent bi sama papa saxaaba la woon fekk dàll cerax moo gën baayam léegi laaj ko ne ko ndax gëm na am na ci saxaaba yi ñoo xam ne dàll cerax moo leen gën parce que Ibn moo ko wax billahi daf koy tawil du ko gëm te xadis bu wér la alxaysami tasxiix na ko ci majmau zawaid waaye du ko du ko wax jamais xadis yooyu duñ leen ko génneel jamais waaye ban xadis la ñuy génnee papa yonent mu ngi safara papa yonent la ilaha illa huwa xeet wi dem safara papa yonent bi ak yëpp yaayu yonent bi mucc moo ñu gënal ñaar ñooñu noonu dugg safara billahi wallahi tallahi tey da ngeen da ngeen a dof seen seen bopp yi waxuma la ay ngooñ waaye ay max ñoo ci nekk <laughs> léegi xadis yooyu moom laa ma jaala dañ koy tawil laa ma xaala faaw ñu tawil ko duñ ko mës a wax min zahiriha ne waaw lii la ci yonent bi jublu dafa am ay saxaaba yu ñuy dàq yóbbu lañ safara wala dafa am ay saxaaba yu dugg safara duñ ko mës a wax mais boo ñëwee ci ñëwee ci way juru yonent ñoom inna abi wa abaka fi ñu ne la faaw nga wax ko min zahirihi al ab léegi li ci métti mooy <clears throat> xam nga ay jaahil lañ malheureusement man bëgguma di naatu nit jaahil mais tu es obligé chaque jour nga wax ibaadu yi dara la ñu xamul xamuñu dara maanaam du ci arabiya du ci fiq du ci usul du ci hadis du ci alxuraan dara lañ ibaadu yi xamul da wax dëgg yàlla man sama xol dafay naqadi ci ma di ko wax je suis obligé mais il faut nga wax ko pour xamal ni ñi làmmiñ bu rëy lañu am mais dara xamuñu ko léegi ndax ci lugal arabiya al ab fépp fu mu ñëw rek bàyyu gaño lay firi ba ngeen bëgg a wax ne inna abi wa abaka fi naar bi papaay yonent bi ko jur lañ ci jublu même bu xadis bi wéroon in iftaratna bi sixatihi law sallam naa jadalan bi sixati al xadis ndax al ab fépp fu ñëw ci arab rek bàyyu gaño lay firi déedéet euh, maa ngi jégalu te damaa dugg si sax xam naa damay dagg waxtaan wi waaye ma mottali rek al abbu ci arab du ne fépp fu nekk rek bàyyi lay firi dellul ci suratul baqara am kuntum shuhada is ci aaya 132 jàpp 133 am kuntum shuhada yaqub al mawt is qaala li banihi ma taabuduna min baadi qaalu naabudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa isxaqa ilahan ñëpp xam nañ ne Ismaayil duwut bàyyi Yaqub waaye nijaayam la wala bàyyi taxam la ñëpp xam nañ ne Ibrahim duwut bàyyi Yaqub waaye maamam la te pourtant yàlla boole na leen ñoom ñëpp ni abaika tuddee leen ay baay kon al ab ci lugal arabiya wala ci alxuraan sax istilaahu alxuraan duwut ne ku nekk rek bàyyi la fay firi bàyyi gañu la fay firi al al jaddu abun wal xaalu abun wala ammu abun lii la boroom xam-xam yi lu koy di wax kon bu doon yéen màggal yonentu bi mu ngi ci seen xol bu doon xormaal yonentu bi mu ngi ci seen xol ba yonentu waxee ne inna abi wa abaka fi naar kon da di wax ne abb boobu noonu peut être abu lahabin la tabbat yadaa abu lahabin wa tabb maa bu doon màggal yonentu mu ngi ci seen xol comme ni màggal Muawiya ak banu seen xol konoon ba yonentu bi ne inna abi wa abaka fi naar di ngeen ko tawil ne ah xëy na abu lahabin la ci jublu parce que arab dina waxee noonu ndax alxaalu abun wal ammu abun wal jaddu abun waaye déedéet ngeen ne Seydina Abdullahi la ci jublu lan la Seydina Abdullahi def lan la def ba léegi kenn mënu la kaa indil lu ko mën a yóbbu safara kenn mënu la kaa indil fan la weddee yàlla kenn mënu la kaa indil ban yónentu lañ ko yónnil mu weddee kenn mënu la kaa indil waaye àllam baram ñi ne mu ngi safara in uridu illa lislaaha mastataatu wama tawfiqi illa billah yàlla nañu yàlla gardeel suñu gëm yàlla gardeel ñu suñ sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak xormaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak xormaal ay wayjuram ñun sayidna abdullahi ak sayidatna amina duñ wax radiallahu anhuma waaye alayhim assalaam la ñuy wax ndax billahi alladi la ilaha illa huwa ba ci biir anbiya u yi balaa ngay am ñu leen gën faaw nga làmbatu ba sonn ba ci biir anbiya u yi sayidna abdullahi ak sayidatna amina asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah waa ahlul ahadis ñu ngi nuyoo bu baax di ziyaara ñëpp di jiital ci nuyoo bi yàlla teg ci bopp groupe bi Cheikh Baye di ziyaara ñëpp di waxan daal comme li Baye di wax rek yenn saa yi nga xëy daal déglu ay ojo yoo xam ne wala nga dem bay tëdd déglu yenn ojo yoo xam ne boo moytuwul rek la des ci kii mën naa naqari lool man daal dama am benn problème wax dëgg yàlla te it ñii di wahaabi yi man damaa yaakaar ne yi <clears throat> amuñ staff bu fekkoon ne maanaam seen groupe bi dafa am ñi ne ci ginnaaw ñooñu damay wax ne seen xalaat daal dëgëru daal daal parce que dafa mel ni li ñuy wootee ab xeex ñoom dañ koo desee maîtriser chaque instant daal dañuy avouer yoo xam ne bu leen jiiñ dara day ñëw pour taqaril ko ñoom bu ñuy jiiñ nit dara day ñëw it pour leeral lañ koy jiiñ ne amut parce que ñoom boo xoolee wax dëgg yàlla daal chaque jour ñu ngi mel ni kuy xeex euh, Cheikh Baye Niass mais chaque jour dañ koy dooleel dañ koy dooleel parce que Baye Niass nag mi ngi bëgg a am dëgg seen kaw yàgg na di wax ne wahabi yi dañu am règlement de compte ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam te loolu wax dëgg yàlla naqariwute maanaam neexut a weddi daal neexut a weddi parce que même ku jàngut même koo xam ne jàngoo yow li nga am mooy déglu son rek ak sa xel mu rafet da xam ne yaa quelque chose ñii daal am na lu ne ci ginnaaw ñoom ak waa ak ak euh, ak njaboot yoon def sallallahu am na la ci ginnaaw parce que lan mooy solos ab jullit buy gëstu ci yonent bi sallallahu gënu fi yonent bi risaala géen ñu wuuteeg ñoom ay baayam ma nga sawara yaayam est-ce que ma nga sawara ak niwut sawara ki koy yar ma nga sawara loolu man luy problème bi ak ban njëriñ lay am ak loolu lu mu yokk lislaam te yi même ahadis saxiixa bu ñëwoon ay mutawatira dëggal na kat yaayam ak baayam ki koy rek wala xayaasu billah ñëpp a nga sawara après après maanaam lu mu def ci lislaam loolu maanaam man pour bu ko wàññi du ko yokk te même loolu bu ñëwoon wér këñ moo xam ay ahadis yu wér wax ko jurit bi war na ko rus di wax wax dëgg yàlla maanaam di taq di taqrir na sab yonent gënu feeg ay woy juróom a nga sawaraak yooyu moom maanaam mi ngi mel ni rek euh, nit ci sa waajur def dara xam nga nuñ ko mën a rafetal rek nga génn nga génn di ko avoué kenn ku ci nekk sa waajur ci woppam mi ngi sikk soo xam ne bëggoo ko tudd bàyyi mooy da ngay xool dangay xool euh, ay xadis yu wér yoo xam ne dañ leen koy jox yoo xam ne ci banu umee lay wax te xadis yooyu bëgguñu koo dégg mais noonu ñuy nës nësalee xadis yi nekk ci Buxaari ne ci muslim di wax ci waa banu umee te ñoom ñu nëbbu ko naan saxaaba yi ñoom ñëpp ay kii lañ waaw ay roywaay lañ eh, ay wal imsaaku amma sayara baynahum lu tax ñu nangu ko ba pare nangu ko ci yonent sallallahu alayhi wasallam ba pare chaque instant di gotti man daal wax dëgg yàlla am naa problème bi ñoom daal xam naa seen taxawaay pour mu jàll du yomb de parce que yéewuñ daal yéewuñ lii Cheikh Tidiane Gueye doo xam laa yafqahuun mais wallahi azim laa yafqahuun